yéenekaay yi dañu koy door ak Walfu Quotidien ak ñaari doomu penda naar yi di Sonko ak kii di président Macky Sall ci xët mu njëkk mu Walfu Quotidien ñoom ñaar ña ngay jàkkaarloo jëm ci dimanche ji dimanche ji bari loolu ay danger téeméer ci ay mbir mun a yëngu ci réew di Sénégal yéen kaay front de terre bi ne Macky Sall ak usmaan Sonko Macky dina wax waaye Sonko ñii di waa F24 ak Yewwi Askan Wi nee na dinañ dindi wër ndomba ak sàkket gënu sàkket këram ci blocus bi loolu nag mën a indi danger ci réew di Sénégal kon ëllëg incha allah lu bari mun naa xew ci bisu dimanche boobule dimanche boobule la yéenekaay bi di Sud Quotidien xëy ak ñun wax ni discours président Macky Sall ginnaaw ba tëjee dialogue bi mu mel ne ci tension politique la nar amee maanaam ci yëngu-yëngu président Macky Sall moom nag euh, ginnaaw tey jii bu jotee way ndare gi ëllëg dina janoo as askan wi. sànq tàll mbaamu banku ci mbiri troisième mandat waaye te li jëm ci wàllu rapport yi ñu ko jox ak mbiri Ousmane Sonko ak candidature am waaye te dialogue boobu ak ñent ci ay mbir yoo xam ne déggoowuñ ci dinañ ci dellu ci mu doon dimanche boo xam ne lépp ci danger danger ak tension <coughs> la nara doon ci wàllu politique loolu yéene bi di Sud Quotidien dikk ak ñun dialogue boobu lee beneen ko dialogue bi wujji ak moom le quotidien dellu si ak ñun di dialogue du peuple waa vingt 24 doon ko amal les notes du peuple noonu la ko gars yi ma jëmbal jaa ñu tuddee na ñaar ci ñeenti commission yi doon am joxe nañ seen way ndare ab cadre goo xam ne dañu koy taxaw ci charte goo xam ne day taxawu mim réew di Sénégal waaye tam wute lool ak ni ko Macky di doxalee bokk na ci loolu ay lii di troisième mandat ndaxte troisième mandat boobule samp ko ci mim réew di Sénégal mën naa it fitna moo tax doomu Sénégal ya nekk bitim réew ci yéenekaay bi di yor yor yëkkati seen kàddu bokk nañ ci ay junni junni demoon ca cour pénale internationale yor yor ne ña ngaa jébaane kii di président Macky Sall ndaxte danoo gis ni ni mu yoree mim réew di Sénégal ak bakkan yi fiy root ak fitne yi mu teg sénégalais yi tax na ñu jébaane ko yóbbu ko ca kanamu tubaab ya moom kooku lee di président Macky Sall nekk li ko toppee ci plainte Juan Branco dugal ko la ko ca mën a fekk yor yor ne Macky ak ñi mu àndal la daloon Sergueï Magestan ca Canada mun na ko dal ndaxte lu tal ci seize citoyens sénégalais yoo xam ne ca Canada lañ jugee ñoom porté nañ ko plainte premier ministre Justin Trudeau moom nag daal procédure yi ak nan ko war a toppee. loolu yéenekaay bi di yor yor dellusi na ci mu mel ne nguurug président Macky Sall gi lirit bu buñ ko bàyyiwul fitna mën na dal seen kaw ginnaaw bi ñu jugee ci seen nguur gi loolu nag la leen Aliou Sarr di bañal Aliou mi nekk ci AFP te samp dëndam ci élection présidentielle mi ngi ci yéenekaay bi di bés bi le jour wax na ci diggante mag Moustapha Niasse waaye tam wax na ci fitna gi ci réew mi ak coalition CAP 24 gi mu jiite ak Econ City gi mu jàpp ni ay rëccu la ak ay yàq waaye nag nee na troisième mandat source de violence la kon warul doon loo xam ne dañu kaa waxtaanee fii ci réew di Sénégal di ay kàddu yoo xam ne Aliou moo ko waxtaanee ak bés bi le jour li jëm nag ci fitna gi ci réew mi lu doy waar moo ci am waaye bii bu yéeme la mu ngi ci yéenekaay bi di Libération Libération wax ci Ibrahima mbay di actionnaire Copper Express moom nag dañu ko jàppoon ca ay AIBD ginnaaw ba mu bëggee tukki jàpp googu nag ñu ko jàppoon ab juge moo bañ moo tax ñu bàyyi ko mu ñibbi lu danoo mujj dóor ko contrôle judiciaire ndaxte li procureur bëggoon mooy ñu jàpp ko tëj ko ci kaso bi waaye juge bi dafa ne la mu def jarul tëj ci kaso bi ndaxte nag ab entreprise nag la jël dugal ci xaalisam doon ab actionnaire loolu warul tax ñuy tee kenn juge boobu la nag la mu def moo tax libération ne kooku moom ab robam jot na li des ci wàllu xibaar bokk na ci li jëm ci lakk ga amoon ca port autonome de Dakar Arsuni ak orex ñoom nag dañoo jàpp ni seen loxo laal na ci ak càggante ca lakk googale moo tax lu toll ci benn milliard bu kos juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards millions xos na ci teg ko ñoom nag dañoo jàpp ne ay amende loo xam ne dañ leen ko condamné ñun ñu fay ko ndaxte lakk gi seen càggante ci la li jëm nag ci équipe nationale bu Sénégal ku sàggat rek ñàkk sa place ndaxte stade quotidien nee na suñu gayndee jamono yi buuxante bu rëy moo fa am ndaxte nag ku xool ñaxete na mu doxalee ci digganteem ak Brésil ak Kalidou Koulibaly mu kenn mënta yëngal Abdou Diallo bu yeboo mu tiit waaye teen li jëm ci xale yi yéeg ci équipe nationale bu Sénégal faw ñu bàyyi leen xel ñu ci mel ne ñoom Habib Diallo ak li jëm ci ñoom Jackson Mendy Walf Quotidien ne xale yi ña ngay bëmax mag ñi ngir ñu puus may leen. dama ni jaaxle jeex na ak borom kéemtaani secret yi kookoy mooy Cheikh Ousmane Touré indi leen garab gu yéeme yéeme di faj juróom-ñaar fukki jàngoro 70 ah, loolee tax mu dippee ko si faaxu jooni jooni Cheikh Ousmane dina faj lii di tension hémorroïde interne externe estomac rhumatisme ballonnement muy biir boo xam ni fu mu toll di jooy ah, lii di kuli nag ak góor gu tëlee ulcère impuissance sexuelle fatiguement général nag moo ci man yéen ñi bëgg am 67 57 11 Sufa wu joni joni daal mooy mos dolli.